rek kàddu yi nga xam ne Babacar Touré wax na ko jëmale ko ci euh, président Ousmane Sonko lu ñeel wàllum euh, justice ak dossier bu Adji Sarr waaye itam ab complot bu ñu koy lalal ci ak ndëgg sërax ngir bañ nu bokk ci élection présidentielle yu 2024 Babacar Touré expliqué na ay détails ngir wax nag ci jële jamono Ousmane Sonko comme na ko Pape Alé Niang waxe woon am na ci ay mbir yoo xam ne rek ñi ngi koy euh, tekk ngir jéem ko fagagal ba du bokk ci présidentielle yu 2024 Babacar Touré wax loolu ba noppi daal di joxe ay explication ana fan la ko tënk lan moo tax mu wax loolu yooyu yëpp Babacar Touré daal di koy wax ci ab vidéo ñu toll tax na présidentielle 2022 bi ñu jëm amul dara li mu mën a tere Ousmane Sonko mu bokk amul dara léegi nag ñi nekk en face ñoom ñoo xam lan jusqu'où ils sont prêts à jusque fan nañ bëgg a dem moo tax ma bëgg arrêté doomu Sénégal yi wax leen fi ñu jëm dina metti fi ñu jëm dina metti maa ngi ñaan yàlla bu bés bu yeggee yàlla sàmmuñu sàmm kenn ku ne si yéen parce que fi ñu jëm dafa nar a compliqué président Macky Sall nee na leen li fi amoon dootul amati ay dunkam nee nañ leen ay dunguroom nee nañ leen dañ ñu bettoon léegi nag préparé nañu euh, recruter nañu ay policiers dem nañu ba recruter nit ñoo xam ne defuñu sax armee parce que police normalement concours police yi pour la plupart lu dul officier officier yi supérieur rek yooyu il faut nga def police il faut nga def armée waxoon naa leen temps yële 3000 yi nga xam ne 2000 yi nga xam ne bëggoon nañu ko dugal ci gendarmerie bi finalement comme kenn matriculé wu leen euh, armée dafa bañ puisque ñu Bango duñ leen matriculé te ñu formé wu leen Kébémer jën nañ leen sotti leen ci police bi. police tey mu ngi à peu pare quelque chose comme plus que mille nit ñoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ñi ay jaaykatu banaana la ñu woon ñi ay jaaykatu pompiteer ñi ay ay waaskatu jën la ñu woon. mais ay jeunes surtout pour la plupart ñi nga xam ne dañu gëm ni ils vont être fidèles au régime jël nañ leen ko sotti leen ci police ba dugal nañ leen ci commissariat yu nekk mais surtout ñu ci bare ñu ngi ci fële ci camp euh, ci camp yi dugal leen kooru régime yi maa ngi ay photo maa ngi ay ay tour maa ngi ak ay liste mais daas fanaanoon la dañuy denc lépp incha allah di observé ko ne lan mooy doon problème comme nañu utiliser ASP yi noonu lañu nar a utiliser ñooñu parce que ci lu ñu bëgg a def ñoom dañ ko def par force bu population bi génnee ñu mate leen bu population bi génnee ñu dóor leen bu population bi génnee ñu fitnaal leen ba ñoom lu ñu bëgg ñu mën koo am on verra mais man li mu mës a wax dama xam luy fitna dama gis li fitna def feneen ci àddina bi moo tax su ma sañoon fitna du am Sénégal parce que fitna bu amee kër fenn pour mu jógee fa dafay yàgg. mais lu ci kanam raw li bët mais sénégalais yi préparez-vous psychologiquement préparez-vous xam leen ni fi nu jëm dafa nar a metti